sëñ bi Malick Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay ziar ngay coordonnateur jàmmi réew mi euh, di organisation yi nga xam ne ñoom ñoo sumb euh, wala sax ñoom ñoo daal di initier charte pour la non violence euh, jamono ji fu ngeen tollu ci liggéey boobu. waaw liggéey bu nu bu la bu nu sumboon woon nañu wax ni am na ay ñaari weer. Hmm. ci loolu ndax bu nu xoolee situation politique bi. muy ci mois de mën na ci mois de mars bi mais même avant de mois de mars bi mhm. euh, ñun dañu mën a mës a taxaw pour pour alerter mhm. pour alerter pour dire pour xool pays bi fan a dem mhm. bi ñu xoolee un peu juste bi ñu génnee ci mois de mars mi dañu commandé benn dañu commandité benn étude dañu xay dañu woote ni nanu ndax gis rek foog nga ma ko pour xool euh, euh, fan ngay sukkandiku bon bi ñu sukkandikoo un peu ci benn ci benn étude benn liggéey bu ñu defoon Euh, pour xool un euh, peu les déterminants de les déterminants de la violence politique au Sénégal mooy que ni euh, fitna bi lan moo koy indi ci wàllu ci fitna politique bi lan moo koy moo koy indi ci wàllu politique mm-hmm. bi xoolee mu génne ay ay ñu génne ay sas ay ci yu bëre mm-hmm. ay yoon yu bëre pour wane ni lii kat sunu mooy mooy mooy mooy mooy mooy indi fitna bi mm-hmm. ñun ni pour ñu xool ka nan lañ koy mën ka nan lañ koy mën a gara gàggal ko ba nga xam ni du daal sunu kaw ndax euh, li xawoon mois de mars dafa dal suñu kaw dafa dal même su ko doon teen mu ñëw dafa dal suñu kaw dal boo xam dafa dal bu metti mhm. kon ñu xam ne loolu dootu amati waaw lu tax loolu dootu amati nag loolu moo taxoon ñu indi charte violence charte de non violence mhm. charte violence nag remplacé wul constitution <laughs> remplacé wul je pense que jarul sax ma koy parce que loolu wax sax dafay gi mhm. donc euh, dafa loo xam ni euh, dañ koy indi ci ci ci ci espace politique bi. Mhm. pour ñu mën a am ci lu mën a déggoo. sas ñu ne mooy que bi ñu bi ñu ko defee bi ñu ko tegee dañu dem ni ñun amul charte binduwul charte. Mhm. nan la ñu dem nanu dem rencontré waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo seq mbir mi. Mhm. même ñi d'accordul ñoom la ñu kër système pour li li leen mais lan moo indi fitna bi. ku nekk wax na yeewi askan wax na président de la république itam ko wax na. wallu wax na ku nekk wax na ni moom wax na jàpp na ni lii moo indi mooy indi fitna waaye lii tamit suñu ko suñu ko defee fitna bi dana su dañu aussi dana wàññeeku. Mhm. kon xam nga sart bi euh, dafay liggéey ci loolu moo tax bi ñu ko defee ñu ñu ñu defaat beneen lël di discuter ci loolu lépp ba bind ba bind ba bind benn benn benn bind sart bi. Mhm. sart boobu ñu bind nag ñu bëri ci acteurs yi li ci ëpp d' accord nañ ko parce que ñoom dañ leen doon yombal la facilité ba tey nag ñu woowaat leen ñu mën a wax nag dañuy lancer officiellement la signature ñoo xam dañ ko signé am na ñu fa teewoon signé ko am na ñoo xam ne ñoom euh, dañu préfère ñu joxaat beneen benn date ah ñu ñoo fekk nañ seen quartier général ñu signé ko xam nga voilà donc ba nga xam ne yow nit ba nga xam ne dañuy en place benn mo benn loo xam di euh, benn euh, benn. benn nattukaay. lu mhm. naan système de monitoring pour muy topp di xayma ah violence bi ah fan la ñu koy nan la demee fan la ñu defee. pour mën a ñu prévoir anticiper ba ngeen di defar wala ba ngeen di tàmbali ñaareelu étape bi euh, fekk na campagne bi door euh, daanaka am na juróom benni fan euh, gannaaw nag ngeen commencé signature bi ndax foog ngeen ne door gi ngeen door signature bi dina am njeexital ci li des ci campagne électorale bi ndax kat gaaw gaaw gis nañ fi ay violence yi nga xam ne tàmbali na déjà. waaw xam nga xam nga xam bi. Mm-hmm. tout rek pour élection locale yi mm-hmm. parce que dañ jàpp ni fii ba deux mille vingt quatre tey am nañu janvier bi am nañu élection locale mm-hmm. juin juillet war nañu am élection législative mooy mooy euh, pencum réew mi ah lu euh, euh, mu élection présidentielle deux mille deux mille vingt quatre te dañu jàpp ni yooyu yëpp dafa dafa dafa nekk yoo xam ñoo lënkaloo mënoo leen teqale ko te sunu sunu suñuy xaar di toog di def di def li naan dañuy sànni ceeb mhm. di def benn par benn dana am lu bëri loo xam day dal suñu kaw te duñu ko mën a fàggane mhm. kon loolu moo tax ma ne charte bi du rek affaire locale bi dafa war dafa anticiper ci lépp loo xam di fitna la fii ba deux mille vingt quatre mhm. kon entamé tey élection yi ah, euh, euh, wàññiwu ci dara wàññi wa wa wàññiwu ci dara te tey soo xoolee tamit li indi euh, soo xoolee campagne bi avant muy commencé li naan pré campagne. Mhm. amoon na dal parce que avant boobu métti woon na wax ci dëgëroon na. ah fitna bi taxawoon na mais yooyu yëpp liggéey nañ ci ba nga xam ci pré campagne bi dal boobu am na bi campagne bi commencé c'est vrai que am na ay ay ay ay ay ay ay violence ay xat-xat bu am fii ak fee mais dama ni li gën a bon li gën li ñuy gën a xeex lan la nga xeex mooy ñu def violence comme pas doctrine mais ñu def ko comme mode d'action ñu dugal ko ci suñuy jëf. dugal ko suñuy wax mu nekk loo xam ni coalition wala parti politique moo ko assumé. Mhm. mais su fekkee ni par exemple ay actes isolés la yoo xam ni voilà campagne caravane bi jaar na le na kële kee yooyu mën nañ ko canaliser mooy naan ay actes isolés. Mhm. actes isolés mais li gën a garaaw mooy que mu nekk mu nekk loo xam dañ ko structuré organiser ko ba nga xam dafa nekk euh, parti bi da ay endossé wala ay nit endossé di ko jëfe loolu moo loolu moo loolu loolu ci loolu la ñuy xeex pour que loolu am ci. du parti. Mhm. te tey soo xoolee bi campagne bi démarré euh, po parti politique yëpp leader yëpp seen première sortie seen première meeting ci loolu lañu wax. Mhm. ci loolu lañu wax ñoom ñëpp adu kon sàmbi nga signé nga bañ signé adhéré nga ci loolu ci non violence. d'accord parce que ci waaw moo am solo. njiitu réew mi dalaloon na leen jox leen ay garantie ne ànd ci seen taxawaay liggéey gi ci gi ngeen ci am ah, ndax boobu ba tey am na lu ci soppeeku ci jéego li ngeen sentir ne benn Bokk Yaakaar andi ko ci taxaw leen. waaw xam nga xam nga xam nga président la comme ni mu di wax na nu aussi wax na nu ko ni ah président. ñun bi ñu bi ñu dajeeg bi ñu dajeeg ñii ñii ñii ñoom tamit lii lañ jàpp ni ah lii lii lii lii lañ jàpp ni violence moo lii moo koy indi. Mm-hmm. yow tamit lii mooy su lii moo nekk sa taxawaay ñoom lii mooy sa taxawaay ndax réew noonu lañ koy doxale mm-hmm. ku nekk am nga mooy que ni tey euh, lépp luy am muy police bi muy gendarme muy force de défense aussi ñoom su leen dénkee su leen dénkee aussi doole réew mi doole boobu aussi dafa am nu ko war a ko war a mën a donc yooyu dafa am solo muy que ni aussi muy euh, opposition bi su nee ni euh, violence bi ci fii lay jógee ñooñu tamit wax nañ leen ne jàpp ñee jàpp la ni lii mooy indi violence lii mooy indi violence seen taxawaay bii mooy indi violence na ngeen ko mën a aussi a na ngeen ko mën a soppi. nan ngeen ko mën a def nga xam ne par exemple moom ñoom tamit duñu dañu jàpp ni dañuy yéen da ngeen yore seen seen seen yat di leen dóor ah ñun ñu leen naan te ñu duñu ñun waxul leen arrêté leen. ah mais ñun ñoom ñu leen leen noppil ku ñuy dóor du noppi. Mhm. donc yooyu il faut que ñu mën ko waxtaanee kii yore yàq di dóore dañ jàpp ne moom mooy dóore foog maa ca dóore. Mhm. pour ki mën ki naan yooxul bàyyi yu noppi mu mën a noppi. Mhm. kon sooy àtte noonu te ñun loo ci loolu lañ taxawee. waaw kii dóore dañ naan ko carrément pour dóore kii yooxu ah ñu ne ko arrêté yooxu arrêté yooxu mais mënoon ni kii yooxu bul yooxu. te ñu kon di ko loolu aussi du taxawaay boo xam ne moom la moom am. d' euh, mu am euh, tamit euh, li nga xam ne nit ñaa ngi koy wax ne yéen boo mayul liggéey bi du du mujj ndax tey contrat moral la te yéen a ngi ci domaine boo xam ne wax fa loo jëfee jafe na ndax ànd nga ci. waaw xam nga loolu. xam nga lu yomb baaxul. Hmm. parce su su yomboon. luñ toog dana xam ne lii yomb waaye réew mi moo ko jar. Hmm. réew mi moom réew mi réew mi moo ko jar. Mhm. li ma wax mooy que tey soo xoolee politiciens yi politiciens yi matuñu fii soo doon jël sénégalais fukki sénégalais boo gis. Mhm. boo jël ñaari jël ay politiciens ñaari peut-être soo amee ñaari ñaari ñooy politiciens mais juróom-ñett yëpp duñu politiciens. Mhm. est-ce que juróom ñetti yooyu dana war a mën a toog croiser les bras toog noppi ah bàyyi ñaari yooyu yore yore yore war a réew mi. wala nit ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy subir ñoom ñoo war a ñoom ñooy buur ñoom ñooy mm-hmm. am dana am taxawaay ci réew mi war réew mi kenn moomu ko ñun moomuñu ko ñoom moomuñu ko. Mm-hmm. ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. comme nag ñun ñëpp ñoo ko bokk nag foog ñu am yoo xam ne dañ ciy d' accord dañ ciy d' accord. kon loolu kon mbir moom dafa am il faut que politiciens yi xam ne ñoom dañu am rôle bu am solo ci réew mi. que euh, yi. dana am dana am mm-hmm. ci réew mi mm-hmm. société civile dana am rol ci réew mi mais il faut que ñun rôle yooyu nag ku nekk mën ko assumer ba nga xam ne ci jàmm ji jàmm ji mu soxla ci penc bi ku nekk war ci mën ta bay sa waar politicien bi bay ci waaram société bi bay ci waaram média yi aussi bay bay seen waar ñëpp hmm. tey euh, nit ñaa ngi récupérer seeni i carte d' waajal euh, li nga xam ne moom mooy euh, élection bi mu mel ni am na ay rëkk-rëkk ci yenn diwaan yi yu ci mel ni Ziguinchor par exemple foofa ñoo ngay ñaawlu le fait que mu am ay inscrits yu bëri waaye lañ leen jox ci carte d' électeur dafa néew ndax li ni mel du moom mooy yeewi fitna ëllëg. électeur bi hmm. dafa am sañ-sañ hmm. Hmm. sañ-sañam mooy que ni dafa war soxla war a sox war a kartam dafa war a voté su bëggee voté dafa war a voté te su soxlaa su soxlaa kartam dafa war a def lu tout pour yombal ko pour mu jël ko même suñ ko mayee mu tëdd ci néegam ñu indil ko ba kartam su ko yoon mayee war na ko dox kon loolu dafa nekk loo xam ni dafa nekk loo xam sax Sénégal question de participation yooyu dafa war a féete mhm. kon yooyu dafa war a féete côté muy li xew aussi Kër Massar. Mhm. parce que Kër Massar aussi euh, sanc bu bees la. Mhm. sanc bu donc ñëpp aussi dañu am sañ-sañ boo xam ne dañu leen war a informer jox jox jox toutes les informations pour que aussi ñoom ñu mën a voté ji fii Sénégal amul sénégalais bu ndaw amul sénégalais bu tuuti amul sénégalais bu prive bu bu nu fal bu nu euh, privilégié amul Sénégal bu nu bañ privilégié. Mhm. ñun ñëpp ay sénégalais te comme ñun ay sénégalais rek. Mhm. sunu yu ñun ñëpp ñoo am ñoo am même même même même même même euh, yelleef. ak ak yelleef. Mhm. yooyu dafa am solo dafa am solo. d'accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Malick Diop ngay coordonnateur Jàmmi Réewmi. oui coordonnateur merci beaucoup monsieur Diop.